mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñi ngi nuyu mboolem téléspectateurs yi ñu topp ci seen seen MKTV di seenu muxadimatul xidma bi nga xam ne ñoo yor lépp lu aju ci wàllu grande mosquée de Touba mu am nag am euh, émission bu am solo boo xam ne dañ ko tuddee gàttandu màggal suñ waxee gàttandu màggal nag dana danañu xam ne émission bi kon dafa war a jëm ci lu aju ci waxtaan ak ñun mbokki taalibe yi ci màggal gi tey jii nag ñu am mbégte mu rëy rëy ñëw fii ci sunu kër sëriñ di xaritu mboolem Muxaddamatul Xidma moo xam membre yi la moo xam ñi ci nekk waaye doon tamit koo xam ne ku fonk liggéey bi la te di ci jàpp bu baax a baax muy Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir euh, en tant que kilifa goo xam ne euh, njabootu Serigne bi la di doomi Cheikh Abdoul Khadir euh, waaye doon tamit boroom xam-xam waaye doon tamit imam doon tamit koo xam ne dangeen gis ay waxtaanam ay xutbaam yu am solo yoo xam ne dafay jariñ jullit yi ci seen diine di leen jariñ ci seen àddina kon dana jaadu ku mel noonu suñu ko amee ak qualité yooyu yëpp nga xam ne daje nañu ci moom ñuy déplacé wu ñëw fii ci këram ngir indil ko suñuy question lu aju ci sunu émission bi nga xam ne dañ koy jagleel euh, jullit yi ak bokk talibe yi kon sëriñ bi euh, xam naa dañ lay <clears throat> jox kàddu gi nga nuyoo mm-hmm. euh, ak bokki talibe yi ak bokki jullit yi ñuy seetaan ginnaaw boo nuyoo ñu doog a tàbbi ci waxtaan wi bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina walana muhammad annabi al amin wa alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsani ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jiit di bokki taalibe yi ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ñu nekk yéen dëkkal ci bis bu te di bi ñu jëm di nuyu bu baax a baax gi ñu dalal suñuy bokk suñuy wëlëre suñuy xarit di waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoom la dénk jumaay Tuuba ak li ko wër lépp muy liggéey bu am solo boo xam ne sunu waajur bu baax ba Cheikh Saliou yàlla yàlla dolli leeram moo leen ci joxoon ndigal ci taxaw di ci wutu mboolem njaboot gi ndax taxawaay la boo xam ne ñun ñëpp la waroon kon nag buñ fa nekkee rek wuutu nañ ci waa kër Sëriñ Tuubaa bi ñu leen ciy sant bu baax di leen gërëm muy liggéey bu am solo nag boo xam ne bu diis la itam nag ndax ku xam na li jumaa ji toll ci murid ji ndax kafat jëmmi jumaa rek nim doon nga xam ne ñëpp ko bokk waaye rek ka fa nekk itam nag di ko xam ne ñëpp ci kon nag liggéey boobu ku ñu ko rek sa am nga sas rëy nag ñu ngi leen ci ndokkeel baax di sant. jërëjëf sëriñ bi e, jasakallahu xayran ci ndokkeel gi ak ñaan yi su ko defee kon dañuy ñëw rek tàbbi ci ci waxtaan wi e, suñ dee waajal màggal e, sunu sëriñ Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu wax ne. bis la boo xam ne dama lott ci sant gi ma ciy sant sama boroom bëgg ngeen santale ma ci yàlla. Hmm. kon loolu dafa mel ni lu rëy la ci moom ba noppi daan képp koo xam ne sama mbég sa mbég la kon nanga nga ma fonkle bis bi. Hmm. kon loolu jaadu na eh, ñu xam dëgg-dëggi bis boobu fan la toll sëriñ bi ak lu ko waral loolu mooy laaj bu njëkk bi. Hmm. jërëjëf màggalu Tuubaa fukki fan ak juróom-ñett ci weer yi muy mooy muy bis bu am solo noonu ko waxe bis bu rëy ci sëriñ bi ni ko histoire waxe sunu waajur wa sëriñ Moulay ñu ko nettalee kon xam na ne sëñ bi dem na ci géej ba ñibbisi ba dem Gànnaar ba delsi ba dem Jolof ba delsi Njaaréem ba am fay at soog koo yëgli ne koy màggale tam bis bi dalaa def saa suñu borom dana ko tegaat ay natt yu diis yoo xam ne dana tol ne natt yi ko daa teg ba tax at mooma nag muy waajal natt yooyee ngir mu dal sunu borom feeñu kon xamal ko natt yi jeex na léegi pay gi rek ci des ak mbégte sëñ Malaye ni ko nattalee wax na ne moor bu Bousso boobu moo joxoon addiya sëriñ bi aw béy mu ko waxee sëñ bi sëñ bi ne ko nan ma ko wàccul ko wàcc ko mu téyeloo ko ba mu des ñeenti fan ci la ko waxee lii rek na ko nan ko na mu desee ñeenti fan la ko laaj na ko ana béy mu na ko demal dañu soppi ko am ab gàtt mu xar ba mu dikkee mu defarloo ko moom la ko reyloo feesloo ko séddloo ko ay saam wax ko ñam ko ñam ko ñam ko ko joxal wax ko na la ca war itam ca defar moom sëñ bi na ko jox li gën a wér mooy at at moom wala at njëkk yi moom sëñ bi moo ko màggalal boppam moo tëj ko ko ginnaaw bi nag la woo sëñ Balla Fally Dieng nag yégle ko na ko na ko yégal taalibe yëpp seen jàppale ko ci bis boobu muy doo xam ne murid yëpp ko fonkoon ni nga ko waxee nag man ñaar ñaar laa xam jumaay Tuubaa ji ak màggal gi laa xam lu sëñ bi woote taalibe yi ngir ñu jàppale ko ci muy Tuubaa jumaay mu woote laaj xaalis ngir dajale ko ngir tabax jumaa ak bis ak bisum bi nga xam ne bisum càntam bi yeneen yi muy def yëpp bu koy def lu rëy bari bari day jug dem nit ñaa koy topp waaye du wookaay kenn bu ngeen ma baa jàppale ma ci bis boobu ñu koy jëltee ca Mbàkke Mbàkke bari mbooloom fa woon waaye bay jug ñu néew la àndal te ba mënoon a ànd ak mbooloo mm-hmm. bi ñu koy woote fii ci ginnaaw Mbàkke itam ca ci dër man nan kër gi fees na daal ak mbooloo waaye ba muy jug wax na ne daa génn ko fasam rek nit ñu ci toppaat di ko dabe waaye moom mos woo lu koy lu koy jàppale yenn jëm si borom kii rek réy gim réy ci moom bis bi moo tax moom mu ne lot na ci ni mu ci war a sant borom moom jëmam xeeb na ko ci ba tax mu woo bokki bi yi na na ko jàppale ci bis bi ci sante la ko kon nag muy bis boo xam ne ndigal lu wér la loo xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko jiyee te mboolem mag ñi fi newoon tam nag bis booba dañ ko fonkoon di dem njaarim booba sëñ bi ma njaarim nu tuwa waaye bis ba dañuy dem njaarim ñëpp togg ku ne togg sa kër berneel sa waa kër yanoo ay dab yóbbu ko ci sëriñ ba kër sëñ ba sëriñ bi yóbbu ko ci penc mi ñu séddale ko mbooloo noonu la déparé woon màggal gi fonk ko lool ak sëñ Tuubaa yëpp fonk ba ni fi bàyyi ko ñu continuer noonu di ko di ko Cheikh Moustapha Karim nekk fi at mu jot moom màggal ko wàkk sëñ Tuubaa yëpp di ko màggal ndax mooy ndigal ak yëpp ba Cheikh Moustapha jóge fi te déen jég rek Cheikh Mamadou Fadal ne nag nan ko waate ko fii ci dëkk bi ndax noonu di ngeen bànd bi ni mu koy waxee rek daa bëggal ñépp lu baax bëggal ñépp aw yiw yu bari te xam naa ne defe ko Tuubaa gi fii ci la yiw yi ëppee ndax sëñ Abdou Xaadir daana wax na daana dégg na ci Cheikh Moustapha mu ne def def lu baax fu ne la baaxe waaye defe ko Tuubaa rek fi liggéey sakare loolu nag moo waral ñu indi ko ci dëkk bi Cheikh Mour Fadil bëgg a dimbale nit ñi indi ko ci dëkk bii nag moom mu toll fii mu toll nga xam na léegi adduna sëpp xam nan luy màggal adduna sëpp xam nan Tuubaa te muy bisub xéewal bu ko xam ne itam bu dikkee ku xam na ne xéewal suñu Tuubaa da ci feeñ bu wér-wér ndax sëñ daa wax ne kuy defar bisi jàmbur sa bis mutu la wax waaye ku ku xool bis bi xam ne loolu lu wér la bis bis lu jamono naqari naqari lu xat xat xat bu agsee du faj du ci mukk lu ci waaye man lu ci moom lépp la ci waay ji def te lu ci waaye def itam bu dee da ngay fas yéene def lu ko ëpp loolu nag darajey bis bi moo ko waral kon nag bis la bu màgg ci murid yi waaye bis bu màgg ci jullit ndax Sëriñ Tuubaa nee na lim am lépp ci tukkeem boobee la ko amee te jàmm ju Sénégal am nag tukkeem boobee moo tax ñu am ko kon nag bisu jullit yëpp la yàlla def na te mel na léegi nit ñi xam nañ ko ba jullit yëpp nag ñu ngi wis ci bis bi li ci jariñu li ci murid yi jariñu kon nag Cheikh Abdoulaye loolu mooy cosaanu bis bi. jërëjëf sëriñ bi mu mu mel ne loolu lu leer la euh, li nga wax sox ci njëlbeen gi mooy li ko waral mooy. sëñ bi ak fi mu toll ci boroomam. Mhm. su demee ba gis mbir moo xam ne nee na lott na ci ni mu ko bëggee. Mhm. kon loolu lu lu rëy rëy la ci moom. Euh, beneen bi it ni ko santaanee defale ko defe ko defale ko boppam. Mhm. kon xam nañ lan mooy màggal gi ak li ko waral. kon tamit ñu ñëw ci suñu ñaareelu laaj mooy kon nag nan la sëriñ bi bëgg ñu màggale ko. nan la sëriñ bi bëggee ñu màggal ko cosaanul màggal lii moom. mooy loolu ma la wax berne xam nga berne ni mu toll ci lislaam mm-hmm. yiw yi ci nekk moo tax sëñ bi dafa joxoon digal ne nan ko li ci njëkk mooy ñu berndeel nit ñi ku ne sa kër nga berndeel mbooloo ma fa nekk ci jiitu moom mooy lu ci topp mooy jaamu yàlla jaamu yàlla ci jàng arxuwaan ndax sëñ moom léppam arxuwaan la moom la jiital léppam ñu fonk njàngum alxuraan bu wér a wér fonk njàngum bu wér ak jokko jokk jox dox mbokk yi nga xam ne moo ci am itam yëpp ci màggal Tuubaa la bokk mbokk ku sax sa ka nga am na ñoo xam ne man màggal laa leen gis fu ma la gis rek xam ne màggal jege na loolu màggal moo na ko may muy lu am solo itam boole waat boole boole xaat xeet yëpp màggal jotee xeet wu ci réew mi yàlla leen dajale sëñ da sëñ Tuubaa dana leen dajale dëkk bi ñu booloo ànd mën a bàyyi sa néeg bàyyi sa tabax bàyyi sa étage dëkk tëdd ci suuf tëdd ci baas loolu lépp ci njariñu toroxlu googu googu ci njariñul màggal la bokk waaye nag ndaje yi ñuy def itam ci ngeen koy def di di di ci di ci jàngalewaat suñu di ñu xamalaat Sëriñ Tuubaa dëgg-dëgg ndax léegi xuraafaat yi dafa bari ci yoonu murid bi ñuy wax bari lool te te du am sukkandiku waay bu li nga xam ne nag am na jataay yu bari yi nga xam ne yi bokk ngeen ci ñu koy def sax mu jataay yoo xam ne dañ koy waajale màggal gi ngir xamalaat ñi dëgg dëgg dëgg solos bis bi ak solos yoonu murit ak taxawaayu sëriñ tubaa ci diine yooyu itam ci yi nga xam ne yi yi nga xam ne moom la ci màggal yi yi taxawal màggal ci la bokk kon daal bu berne gi jàllee njàngum alxuraan mi njàngum xasida bi waxtaane ki diine delloowaat ci dëgg-dëgg diine loolu mooy màggal te loolu ku ne xam ne mi mi yaatal nañ ko bu baax a baax léegi bu màggal jotee wax dëgg yàlla ku ku bëgg xam sëñ bi lu wér boo dégloo da nga xam ndax ñu xam ñoo xam ne li ñu koy wax ñu ngi koy teg ci yoon mi ngi am muy njariñ loo xam ne adduna sëpp ñu ciy jariñ léegi kon a xam na ne dimension bi màggal am ci ci ci ci ci àdduna loolu moo ko yokk gannaaw bu sëñ bi jàllee nii nga xam ne ni ne ni lañ couvrir màggal gi di ko di ko leeral di wax nit ñi li fi nekk moo ko waral waaye nag bokk na ci li nga xam ne itam mooy màggal dëgg itam mooy siyaare barabu sëñ Tuubaa ak siyaare gaa baax yi nit ñi mooy lool lool lool leen mës na leen taral lu ne ba mu des ji ku fi ñëw man ngaa bañ a gis kaneen ku man kala neex bàyyi ngi saay jumaa ji ci bokkut kon siyaare ji barab bi sëriñ Tuuba fekk fa sëñ bi nekk loolu tam ci ci ñi nga xam ne moo jiitu ci ñi fi ñëw la ci siyaare bi itam am solo lool ñu xam ne booy siyaare ji sëriñ bi dëgg jumaa ci rek dafa war a ànd ak toroxlu akuk dal ak gis naa ne nag lu baree bare léegi day xaw ci jumaa ji bu màggal jotee nga gis mu ñuy dugg ñu yuxoo donte sax jërëjëf sëriñ Tuubaa lay wax wala allahu akbar ci yooyu yëpp dañ koy tere ci jumaa gis nga jumaa jàng alxuraan sax jàng alxuraan ci kaw tere nañ ko ci ndax da ngay da ngay da ngay xatal keneen kuy dégg te taswiis ngay def loo ci def dee ko def ci soxol te bañ koo génn ci biti kon yooyu itam lu mat a bàyyi xel la da nga gis nit ñi desaan parce que séef lañ àndal rang lu yàgg yàgg ngir ba àgg sëriñ bi rek waaye nag nit dana def lu baax mboolem tur ci bokk ba am ba mu yàqal la ca dara kon nag ñi nga mboolem ñi nga xam ne ñi ngi jëm ci barab bu tedd boobu nan xam ne kii bu Sëriñ Tuubaa toogoon kenn ñu ngi jëm ci di wax te dañuy ni ni ni ni ni ni ni la jàkkaarloog ñoom kon nag nan ànd ak yar ànd ak teggin ànd ak toroxlu tey tuub ci sunu xol tey jéggul sunu borom tey ñaan li ñu bëgg ànd ko dal boo duggee topparaan gi la tegal ba ngay egg ci sëriñ ba ba eggee ca barab ba nga teewlu ñaan li nga bëgg dem loolu mooy li teggi ni siyaare waaye nag coow lu bari li moom murid fi mënuñ ko woon sax murid daawul wax ci kanamu sëriñam rawatina bu jëmee ci ku tedd kon yooyu am solo lu mat bàyyi xel la am na yeneen tam yoo xam ne ba laaj moom gis naa ko mu bari ci siyaare bi muy téléphone yi xam nga Sénégal léegi dafa xew koo gis ma ngay dem ba ci sëriñ yow nga war a am si ite bakaar yu bari yi rëcc rëcc yu bari yi ak soxla yu bari yi nga war a am lépp nga war koo teewlu ñaan ko ci sa nga yor sa téléphone di photo def li waxuma TikTok wala ngay def WhatsApp yooyu yooyu yëpp ak di senap yooyu yëpp daf koy def ci barab bi sëriñ Tuubaa duy teggin te ñàkk xam barab bi nga nekk la foofa ku fa toll moom war ngaa tal lu dut loolu war ngaa tal lu dut ñaan ak jéggulu ak toroxlu loolu moom lu mat a bàyyi xel la ca bari na gis naa itam léegi lu xew mooy déguisement yi bari yii jigéen ñu sol mbubbi góor sol caaya wala ji góor guy sol yi fi jigéen sol jigéen yooyu yëpp ñuy teggeen sëriñ Tuubaa mosu ko nangu lislaam sax da koo bañ boole ci kon nag yooyu jëpp kuy jëm ci sëriñ wi war ngaa góorgóorlu lu ginnaaw da ngay rooti fa nga rawati nag la nga yóbbaale fa boroom la mu bëgg a gis waaw boo fa yóbboo lu bëgg lu gis na du la xool te yooyu moom sëriñ man man noonu war na bëgg koo gis kon yooyu mat a bàyyi xel la ñi ko noonu lëjlekat yi nga xam ne ñoom itam ñooy bàyyi nit ñi nga xam ne dafa bëgg am seen itte bëgg a seere bi am ñoo xam ne dañ leen topp biti di leen laaj ak ay yalwaan yëpp lu mat a moy la ndax yonent bi sallallahu alayhi bañ na ko bax boo réerlee di ko laaj ci jàkk sax day wax na la ñaanal mu bañ a feeñ kon nag bëgg ko dara ci jàkk raata na ko yelwaan kon yooyu yëpp yu matt di bàyyi xel la ci màggal bi ak ci siyaare yi loolu lu am solo la lu am am solo la sëriñ bi ñëw na ci ci laabire ñun mbokki taalibe yi nga xam ne ñooy ñëw di màggal si rawatina gan ñi kon loolu dafa mel ne dafa gën a jëm ci ñii ñëw Tuubaa ci mm-hmm. boppam mm-hmm. su ko defee bala ñoo jàll ci suñu bari laaj bëgg nañ tamit ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk biir Touba. Mhm. di teeru gan ñi. Mhm. yéen dénkaan nga ñuy nga ñuy dénk. waaw mhm. ah, loolu itam ñun nag dana am fas woowu nag ndax dëkk Touba aw la. muy boo ci seen àdduna rek bu sañaan am kon nag ñun ñu fi dëkk am na aw sas bu rëy ci ñi ñuy fekk si. war nañoo góorgóorlu ba ku ñëw fekk sunu. boo dikkee doo gis ci ñun loo ñuy xebet. li ñuy xebate nag mooy diine ju manqué wala taalibe gu manqué kon nag loolu nan fexe ba ku jëkk ñëw na fekk loolu ñu yaatal leen ci kër yi itam nag ndax gan gu bàyyi këram bu dikkee yee la nga war ngaa bàyyi sam néeg ko kon nag nañ leen di yaatal ci kër yi yaatal leen ci ci ci njaboot gi waaye nag fexe ba itam nag li nga xam ne moom la sëriñ bëggoon màggal doonu ñu toog rek di def ci kër yi di xawaare ka waxtaan ak werante fexe ba kër gune boo xëyee nga génne alxuraan génn xasida mbooloo ma fa nekk te mën a jàng di jàng ñu mënut a jàng itam di teewlu jàng moomu loolu ci baax na ci boroom kër yi nekk Tuuba fexe ba bar na itam nga góorgóorlu ci ba bam bam bam ba ba ba ba des kam kàttan moom loolu ci lu am solo ci dëkk bi waaye fexe ba daal ba sunu diine wala sunu sunu bi kenn lu fi ñëw xebet ko loo man di def ba waxtu jaamu yàlla jotee lu bés bi xumb xumb nga dem jaamu jàll rek ndax am na fi ñëw ñoo xam ne bokkuñ ci yoon wi te yëpp dañ koy dañ dañ koy xool kon nag dañ góorgóorlu ci li sëñ bi bëggoon muy berne gi góor góorgóorlu ci njàng mi ak njàngum xasida bi ak wérdi lu man sa moytu jataayi waxtaan yi ak wax jataayi politique yi te xam bis boobu daal du bisam kon loolu waa dëkk ñi nga xam ne dëkk bi loolu mooy seen wàll ñu waaj leen waaj waaj ga war ci ay berne ak ak waaj ga war ci suñ diggante suñu borom muy ndax berne ñaar la berne xol ak berne yaram berne xol gi nag mooy jàng Alxuraan njàng xasida ak sikkar ak waxtaan ci sëriñ bi waxtu yaram bi nag mooy ñi nga xam ne moom la suñu mbokk mbusoo bi yi bëgg <laughs> waaw jiital ci jërëjëf sëriñ bi kon euh, ñun waa Touba war nañoo dégg laa yu am solo yooyu yëpp kon sëriñ bi dañu du ñu jeexal mukk nag te ñëwuñ nga waxtaanal ñu ci sëriñ bi. Mhm. jëmmi jëmmi sëñ bi ci boppam. Mhm. ci bis bis boobu bisu fukki fan ak juróom-ñett yi ba muy génn Mbàkke Mbàkke Bari bis bu tam mhm. ranke boobu nga xam ne jaral na ko ba tax mu wax. Euh, euh, bayta mu daw yaram yooyu mm-hmm. suuriya xalat wala mm-hmm. ahlu xan ni tafarraqat mm-hmm. fatxi alladi anhu lmadihul qadiru bis boobu daal bëgg nañ nga nga fàttali ñu wax dëgg la mm, ndax bari xumb na mbooloo fa nu ko suñu waajur bu baax Cheikh Modou Fad nettalee rek ban indi ban xëy di ko woo di ko woo di ko woo te fekk woote yi dox ci moom sax te yàq ka ñoo koy kar bam bu boot bi coow lu bëree sëñ bi soog a yebal suñ maam Cheikh Ibrahima ne ko demal seetal ma ba xam woote bi yéex gouverneur mooy woote am déet loolu waral maam Thierno dem bam demee ndar fekk borom woon borom ndar boobu moo jiite moom moom Sénégal ndax ki bokk ki moom Afrique moo nekk Dakar ki nekk ndar nag mooy jiite Sénégal <laughs> léegi bu mu demee nag gis ko wax wax ko ndax dañ wax am nañu sax ne bi même Thierno ak ci bunt bi xam nga comme day cabaar si waaye ñoom dañ ko am dañoo seen maam Thierno ak col gu woyof gi mu taxaw ci bunt bi xam nga yooyu ñu ko mu xool laaj leen kee ci buntu ba lu muy dox ñu wax ko ne ko sëñ bi ko yónni mu dikkee wax ko ne ko dan ne dan koy wo dan lay woo sëñ bi mu laaj ba xam mu ne ko maa ko woowee yebal naa sax aram bi ñu ngi koy dégg ndax woo na ko nanguwut a ñëw moom jar na ko dee sëñ bi jox koy garanti looloo taxoon ñooñu taxaw jeewal di xaar am am Cerno ngir mu jox leen ndigal nag ne kon nan taxaw moom am Cerno ne sëñ bi dana nan ko may vingt-quatre heures bu jotee bu jotee ci ñëwul nag ngeen dem dal ci kawam moo tax ñu taxaw jeewal am Thierno départ ki ñu ko boole woon ba koo saa saa vingt quatre heures yi hmm. da ko réeral ba mujj ba am Thierno nee na guddi bu mu guddee bu guddi nag mu mujj mujj tëdd ci fas bi bàyyi ko. bi fajar ba fajar di egg léegi la egg jeewal léegi pàkk bari fekk na sëñ moom ma nga doon baaj ba baaj na ba jekk xam naa ne ba mu ko ba mu ko tàmbalee wax la ko jërul wax. daal waaj am na ñu ne alxames la la guddi la ñëw ajjuma gaaw sëñ bi daal jug nag dajeeg ñoom bi mu dikkee ba jaww la dajeeg ñoom foofu. mu toog faa fanaan waaye mu fanaan mu fanaan xëy jaar kokki yandu fa dem jur dem Louga kooku fa nekk ba guddi moom mu jóge fa demaat dem kokki dem Louga soog faa jël nag saxaar ci bëccëg dem Ndar ñu eggee foofu la nekk bala ba ba bala am fa ñeent fan yaakaar ñu soog ko atte mm-hmm. atte boobu mm-hmm. le cinq septembre mm-hmm. amaan na fa weer soo so ñu soog ko jàllale Dakar nag moom moom itam guddi mi métti yooyu mu wax isa sakatu sari kim na biit nga wax ba egge mu ne saan mu koor la fa la fa egge jant yi muy waaj dog di jàpp ñu ko wax muy wax xaw lu ñu koy dee yàgg si rek fekk ba parapare leen ko néeg bu xat bu bari ay yuy jame ak sa ak sa yu puus du tëj muy lu metti lool te noonu la nekke ndoo ko sëñ Abdoulaye Mbacke nettalee sax mm. soxna jaar ak fa mm. Mm. xat-xat yooyu mu am fa ñetti fan mu am fa fan soog a soog dem soog a dem ci géej gi nekk ci juróom-ñaari yooyu manqué tuuti metti lool diggante Lembaroo wali ak Mayomba Mayomba moom yow bu fekkee maskaat googu xam nga ba fi mu kenn mënu faa dem nam soree ak nam xate man dem naa gam waaye mënu faa yegg mu yàgg ci diggante boobu lool sonn fa lool cinq ans yu njëkk yëpp sëñ bi xamuñ ci moom dara juróomi at yi wax nañ tubaab nag bu amee cinq ans ñu bind benn leetar yónnee ko maam Thierno xamal ko ne seen seen sëñ bi noppal la muy mu jaaxle lool ñëpp jaaxle ndax ñu réunion jaaxle nu ñuy def léegi moo tax suñu saasay mu xool daan naan maam daan yenn yaay maam Thierno moo gën a doon murit <laughs> ndax bi mu gisee ñi gise gisee ñuy gis bari murit yi maam Thierno ñi gis moo moo Thierno na ko loxaw hmm. seen gis bari na murit yi woon fii mu ne ko dara mu koy nëbb comme ni ni faaxoo fee jigéen moom hmm, <laughs> ngoog <laughs> mu sonal ko sonal ko ba mu wax ko loolu nag ah. bi kat mu fi bàyyi ko. non ko sëñ bi man mu leer yéen de yéen de de waxoon na ma loo gën a ragal ma ne ko faatu mu ne maa lay dugal ci bàmmeel te maa ngi di dund demul de boo doogoo si le le boo doogoo ci moom da lay gis nga gis ko wax ne ci suba sax la telegram bu jógee sëñ ci moom car na ñu xam ne mi ngi ci àdduna an loolu gurmat yooyu njëkk yëpp moom kenn xamul ci dara dara dara mook soo bi rek gannaaw bi la fa seexantaak ñëpp soo dem gamul nag nekk ca loolu ñibbisi yàggaatu fi xam nga dafa war sanc sanc sanc dara maanaam agsi rek booba sa maam sa rafa rek sa ant ñu jëndi bagage ñu indi ko ñu ñu kalaamete ko ne léegi duuti gànnaay day wuti ngànnaayati bagage yi ngoog bagage yi sëf ci moom daal koy gis romb leen ne ah fu fi ngeen jëm nii ñu ne ko ah, eh, bagage sëñ mu lamb <laughs> gis tànkela maa di yaakaar ne moom ay ay ay fetal la maa di bind tubaab yi neen dafa sëñ baa ngay daal di waajate fi moom itam daal di nekk ci ay guddeem lool jaar ko lool ba mu di woo sëñ boobu métti rek faneen bu kar bu ko ba sëñ bi dem ba mu eggee ba mu xëy moom kenn du natt la xaw waaye mooy ba mu dikkee gis nga ko hmm. dikkee daal ak doole wax na mi ngi ci kër ga du jaar ci bunt day hmm. fu mu toll gaa yi day dag dagg sang tag dagg ku jàll waaye si day dagglu su duggee bagage day door xeej xotti xool xool dara dara gis nga ci maanaam ne boobu bërsin mi nga xam ne ba am tawfeex ci waaw booba leex la la la tooy dox danoo woo bur yëpp ne la ñu leen mbàkk ngir attaqué sëñ bi boobu jàpp na sëñ bi day xeex mm. xane bur ba Jolof ak bur Saalum ak ak ak ak ndameel yeeg ak ak buur Kajoor beeg ñu ñëpp leen boole ñu leen ñëw safakante boobu safakante ñu ñëw ngir dajee si fii nag ngir daj ñëw ci sëñ bi wax na ne booba la buur boobu wax wax daa ñëw ndànk buñ ko waxee na ma da ko waaye daa ñëw ne nan la escorte ndax xam naa ne xam naa pexe yi caddu man mm-hmm. nañ fee ñëw guddi indi fi gànnaay daa fexe ba fi ñoom dara moo moo waral ñaar ko jëlaat jubbaat ko Mauritanie nag da sa exil bi ñaareel bi maamaat foofu juróomi siwaat juróomi at yoo xam ne moom tax ko naar def fa xar baax wu nag mm-hmm. fa ne naar yi na xam nga naar moom ak nit ku ñuul bala koo gëm da nga koy war wan lu wér bokkut ak olof waaye moon leen loo xam ne si moom ay daanukat lañ ci sëriñ bi lu ne wax nañ ko ko hmm. mu desuwaat nag ñu yóbbati ko président service fee ci jolfati suñ ceen mamati fo juróomi at sukk indi jaareem fala eggale liggéeyam bii nag nekk fana doon géej ju tuur moom buñ ko jëlee moom moom daa fees del del del léppam di béytin nga xam ne ñu mag ñi ndax na mujj ne njëriñ xarbaax dund xarbaax ndax li muy def xarbaax la lu mu def rek bokkut rek la xamoon. waaw moo waral nga raamu ma sayri. ilaajul biir la daa dasin law xaaya sirra maa fi sayri maa raamu fa sayri mootun. Hmm. mu ne waaw mu xamoon leen indi njëriñ boobu boobu da nga ko indi joxe fee isolé ko hmm. nit di fees del di fu ñu fa jógee ñu ne ah ci daal fii na ko yóbbu ci taxee kon mu mu tane <laughs> ñu indee ko foofa nag buñ ko indee foofa da nga ko limité woon nit ñi néew nan nan lay siyaare par bés mm-hmm. ay muñ dara mu feesati del fu ne nit di fa jógee fii ba Mauritanie ku dikk aajo bu dee aajo yi mu faj bu dee aajo sayir mu faj ko mm-hmm. foofu nag fa nekk ba bis bi nga xam ne mooy bisu murid yëpp nag mu joxe ndigal ne nan ko ci jàppale ma ne loolu laa xam lu sëñ bu waay mu di kay leen jàppale ma ci xem naa ci sama bopp muy màggal gi kon nag bis bu am solo boo xam ne nan ko waajal bu baax a baax mm, li ma ciy rek mooy ñu ñu soññaan murid yi nag bokk taalibe yi ci ci ci ci doxeenu murid yi fi ne xam nga sëñ sëñ bi Tuubaa dafa dafa wax ne na waajibina alal di tax seeli saadi yi min at qabla istixaalihi bil infiraadi bi sigri waaduhu walil jihaadi xam nga li murid lekk tëb rek da ngay daal di beru mm-hmm. yor sa kurus baa nga yor sa xasida rek ngoog nga sëñ nag da war a balaa dara ngaa bara ngaa dem di sikkaree ka mm-hmm. jihaad yi nga xam ne li ngay baal mm-hmm. bala nga def nag da ngay jiital tawxiid ba noppi nag muntahi muntahijan masaba ahlu sunnati maa al jamaati wa tilkul junna nga nga jàng ndax suñu mëntaxaa dana ko wax daa dégg mu naan li baaxoon ci xasida jàng xasida bala ngaa jàng xasida nga dem jàng ba ne ar la ma soo ko doon jàng xasida xasida loolu mooy suñu wax rek nga war a am tawxiid soobu masxabu sunna ak jamaa ne loolu mooy pakk ba ndaa dina isulumaatu bisxatin isulumaatu bisxati ixtixaadi tukk fa anwaar ibtibaahil haadi lëndëm ak bidaa xam nga bidaa bidaa yi dafa bari ci ci yëf yi léegi ngoog ngoog te suñ bi nag lay de dafay day tax ba leeru yàlla doo ko gis kon nag góor góorgóorluwaat ci jéem a xam bala ñoo dugg ndax ndax bi mu waxee yooyu yëpp da daa dafa ne nga xam toxaru ak siyaam ak salaat julleeg koor ak ak sakaat boo defee loolu ba nga soog wut sëriñ nag wa badho yasluka in raamal wusool xalaa yaday mukammilin yafqu rusul boo defee yooyu jàng xam xam sey atte ba noppi nag wut sëriñ bu lay àggal sa borom léegi nag nit ñi loolu lay loolu lay jiital. Hmm. moom da nga war a mel <coughs> ni mu mu yoxoo doxoo bi mu wal xibaar mu sara wa man nag teg ci xam-xam ak ñuy jaamu yàlla. gamaa mm-hmm. yurab bii bi tarkil xaada soog laa nga léegi <laughs> moo jëf léegi nag kon nag yooyu nag lu am solo waran koy waran koy bàyyi xel ñun teel bi yëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant nag ci seen liggéey bi ngeen di def ndax liggéey bu diis la ndax ñoo ko wax rek jumaay Tuubaa be murid kenn benn murid bu ne jàpp na kenn ëpp loo ko ci sëñ Tuubaa benn murid jàpp na kenn wëcc kook kun fa teg nag nga bëgg di wax nit ñi leen jaar leen fii jaar leen fii am ngay jafe-jafe waaye nag liggéey si liggéey yàlla ak liggéey sëñ bi benn bu yomb amul nag mm, kon nag leen di sant bu baax di leen ci soññ di leen ci yërëm ci leen xamal ne ñëpp a ngi leen di sant ci liggéey boobu ndax xam na ne loo lu mënut ñàkk la ca faaw ñeen di ko def kon nag yéen ñi nga xam ne yàlla dogal na sunu waaye ba tànnoon leen teg teglante ci yéen ci lu baax a baax ku ne mën koo seere ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax te di ñaanal ngeen di ci am ndam ca bañ am benn gàllankoor asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf euh, sëriñ Seydi Muxtaar moom Cheikh Abdul Xaadir moom Xaadimu Rasuul tey moom lañ àndaloon ci suñu rubrique bu am solo bi nga xam ne MKTV da koy def tudde ko gàttanu màggal muy ay jataay yu am solo yoo xam ne dañ koy séq ak boroom xam-xam yu mel ne moom tey jii ñu ñëwoon fii fekk ko këram mu indil ñu waxtaan wu fees dell wu am njariñ woo xam ne wax nañu li waral màggal gi nan la ñuy màggale teggin yi ñu war a làmboo fàttali ñu timit tukki bu tumuranke boobu bu daw yaram boobu nga xam ne sëriñ bi defoon na ko ak fi nga xam ne fi la sëriñ bi mujj euh, ndax bañ koy génnee moom doo nga ànd waaye mujj nañ fu mu mën a nekk mbooloo dañ koy dañ koy dañ dañ dañ fay fees dell ba mujj ñu amuñ pexe ci moom ñu mujj bàyyi ko noonu ba sunu borom dogal coobare ci moom loola nag mooy law ba léegi nii maanaam kenn ku nekk ci ñun taalibe yi bu ñu royee dogu gi nga xam ne sëriñ bi amoon na ko rek lu ñu def suñu borom fekk ñu ci kon labiré yu am solo la yoo xam ne mën nañoo mën nañ koo jariñoo bu baax a baax kon ñi ngi sant bu baax a baax euh, mm-hmm. suñu Fallou Mbacké ak suñu Abdou Khadir ñi nga xam ne ñoom lañu àndaloon di gën a sant it sëriñ bi di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko mm-hmm. ñu ngi leen di dig dajee ci seen beneen waxtaan boo xam ne day aju ci waajtaayu magal gi ak euh, MKTV asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw.